ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم mbokk yi ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala ñu ngi julli ci ngën di jullee di sunu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dañ fex ba du sonek yooyu di ñaanal ay waa këram ak ci saxaabaam ak képp kuy jéem a teg tànkam fiñ ko tegoon ñoom ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa yàlla nu ci yàlla boole euh, mbokk yi ñu ngi sant yàlla ñu ñu dajale fii ngir ñu fàttalante suñu mbiru diine ki ñu tànn mu ñuy defal waxtaan bi gis ngeen di ko Ousseynou leerale yàlla moom pare na dikk bind bu balaa mu ñuy bind programme jotaayu tey bi pare woon na dinañu dund ba atum deux mille onze ci weeru décembre tey dimanche Cheikh Ibrahim Khalil dina ñëw fàttali nit ñi ci seen diine ñun nag comme xamuñu ñun dañu am bëgg-bëgg mooy ñu programme docteur Mouhammad Ahmad Lo fekk yàlla moom la mu mooy kii la donc programme yàlla mooy mujj kon Cheikh Ibrahim Khalil moom ganiyun ani taarif dañu nekk fii di wax mooy kan xam ngeen ko ñun li ñuy ñaan yàlla rek mooy moom yàlla ko yàlla may wér ak tal mook njobootam ndax ñii ñoom ak ñoom docteur alalu lislaam lañu ci la xëy ci la gon donc seen wér seen jot seen tal njëriñ la ci lislaam kon day ñaan yàlla mu sàmmal ñu leen ba seen wér googu ñu tal ba fu lislaam soxlaa rek ñu taxaw si mu si mu nekk léegi sori mais bi bi ñu bi mu jotee xabaar docteur ngante ñëw na dafa jóge foofu fanaan si ngir bañ a tardé li kon yàlla na ko yàlla fayal kon moom moo ñuy fàttali euh, waxtaan yi nag mooy fan lañu ñu toll ci jëfe alquran ak sunna vraiment ñi tànn thème bi tànn nañu thème bu am solo parce que thème yi <coughs> mooy ñun jullit yi dañuy tegaat suñu bopp ci balance teg alquran ak sunna ci balance seet fan lañ ci toll ndax jege jege nañ ko wala dañ ko sori wala dañ ko sori lool njëriñ li nag mooy moom bu ñu fàttalee fan lañu ñu ci alquran ak sunna ba pare bu ñu jógee ku nekk moo gën a xam boppam nga toog sa néeg nga xoolaat sa bopp bu dee da nga sori lool nga góorgóorlu di gën a jege bu dee xaw nga jege nga gën a farluwaat kon duma guddal loolu moom moo ñu koy gaaralal lii mooy waxtaan wi kon ku nekk ci ñun na yëg ne moom lay wax bu ko defee ci la waxtaan wi di am njëriñ ñu ngi ñaan yàlla waxtaan wi yàlla na bokk ci waxtaan yi réussir ci lislaam waxtaan bu réussir ci lislaam teguwul ci mbooloo mu bëri maa conférencier bi devine sujet bi débat bi riche déedéet waxtaan bu réussir ci lislaam mooy moom waxtaankat bi bu ñu fàttalee ba pare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 yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa wattaqu allaha alladi tasaaluuna bihi wal arxam inna allaha kaana alaykum raqiba yaa ayuha alladina amanu ittaqu allaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muxdasatin bidaa wa kulla bidaatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar ayuha alixwatu wal axawaat assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi fi teew yépp maa ngi leen di nuyu di sant suñu boroom tabaraka wa taala ci tawfiq bi mu nu defal ba nu mën a daje daje boo xam ne li ko tax a jóg mooy def ndigalul suñu boroom tabaraka wa te mooy bokk di fàttalente bokk di laayante biir ci njalbeen gi nag maa ngi leen di dogal ngànt ci jéem ji ñuy jéem a wuutu ki waroon a def waxtaan wi te am ca ak tële ak kook lot ci def ko anam gu mel ne gim ko waroon a defe moom ñu ngi leen di dogal ngànt ci loolu dafa fekk na rekk bi ma ko waxee dama ko wax rek li seex xafisul xakam waxoon ca ba muy tàmbali di woy woyam wow di sulamul wusul mu ne saalani iyaahu man laa buddali min imtisaali sublihil mumtasali mu de lii day ki ba ko laaj day koo xam ne mënuma ñàkk a tontu ak laajam waaye nag mu teg ca ne fa qultu ma ajsi wa ma isfaaqi muctamidan ala alqadiri albaaqi kon loola rek moom la ñuy def noonu itam di dimbandikoo suñu borom tabaraka wa taala di jéem suñu kem kàttan ci waxtaane bunt bi bunt bi nag ni ko Cheikh Ibrahim waxe léegi ab laaj la ayna al muslimuuna al yawma min al qur'ani wa sunna fan la jullit ñi toll tey ci seen digganteeg alquran ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi muy laaj boo xam ne bu yaatu la boo xam ne itam kenn du ko mën a tontu tontuwaaleel ñépp kenn ku ne yaa ci yor sa tontu li ñuy def rek kay mooy wane suñ kem kàttal li dox diggante jullit ñi ak alquran ak sunna su ko defee nag kenn ku ne xool loolu dox sa digganteeg alquran ak sunna yow loo ci dox ndax tolluwaay yi tolluwut ni mu ko waxee sànq bu doon balance la dangay teg po bi rek kenn ku ne nag lam yor mu teg ko ci beneen plateau bi mooy xam dana po bi dana daanu wala dana yëkkatiku wala nu muy toll waaye po bi rek nga mën a teg kenn ku ne nag moo cay teg lamyor moom ca beneen plateau ba ca des bu fekkee lam yor diis na po ba dey daal di jóg waaye bu fekkee lam yor woyof na nag day mel ne tegu ca dara ni ko borom bi tabaraka wa taala waxee fa man saqulat mawasinuhu fa ulaika humul muflihun wa man xaffat mawaasinuhu fa ulaika alladina xasiru anfusahum fi jahannama xaalidun defe naa kon peese bi noonu rek la koo xam ne la nga yor sa digganteeg alquran ak sunna dëgër na ba soo ko tegee foo ba ñu teg alquran ak sunna jóg ngir diisaayu la nga ca teg borom bi nee na fa ulayka humul muflixuun ñoo ñoo texe waaye koo xam ne la nga yor nag sa digganteeg alquran ak sunna wayef na lool ba boo ko ci tegee foo bi sax du yëngu borom bi ne fa ulayka alladina xasiru mu jeex kon moo tax dañuy laaj beneen laaj maa hiya silatul muslimina bil qur'ani wa sunna lan moo dox diggante jullit ñi ak alquran ak sunna ban jote lañ am ak moom ba tax ñuy laaj fuñ ci toll silatul muslimin bil quran wa sunna muy jokkoo jullit ñi diggante alquran ak sunna seen joteeg moom li ñu séq ak moom yi ñu war ko topp war caa jàpp war caa jafandu ndax alquran ak sunna ci la lislaam jóge lu ñuy xam ci lislaam foofu lay jóge kon nag dañoo tudd muslimoon nekk ay jullit te li nuy def jullit muy nekk giñ nekk ci lislaam lislaam boobu li ko téye fi muy bale mooy alquran ak sunna kon ngir sunu turu jullit mën a dëggu mi ngi aju ci nunu jàppe sunu digganteeg ñaari ballukaay yooyu nga xam ne ci la lislaam bi nuy askanoo bañ tuddee nu jullit foofu lay jóge nusuus yi ci alquran ak sunna xadis yonente bi sallallahu alayhi wasallam bari na lool ci di digle nu ñu war a jàppee ñaar yooyu bu njëkk bi di alquranul karim suñu borom tabaraka wa dafa digle ñu jàpp ko waaye ñu xam ne nag ñaar yooyu itam du ñaar yu taqalikoo yoo xam ne man ngaa jàpp bii te doo jàpp ba ca des kenn mënta jàpp alquran bu wér ni ko war a jàppe te jàppaale woo sunna te loolu dana leer ci aaya yi ak xadis yi waaye kenn mënta jàpp sunna itam nag te jàppoo alquran kon ñoom ñaar ñaari tur la waaye benn melokaan la borom bi digal yonente bi alayhi salaatu wasalaam te bu ko digalee digal na jullit ñépp ndax dafa digal ñépp ñu roy ci moom ne ko fastamsik billadi uxiya ilayk jàppal ci lii ñu la wax yu innaka ala siratin mustaqim te soo ci jàppeekat nga xam ne kon yaa ngi ci yoon wu jub wi nga xam ne mooy taxa mucc ëllëg mooy taxa texe ibnu jariri tabari ci bi muy tafsir aaya boobu dafa wax ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi wax yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko fa tamassak ya muhammad bima ya'muruka bihi hadha alquran alladi awxaahu ilayka rabbuk ci lii nga xam ne moom la la alquran jii la sa borom wax yu lim lay digal jàpp ci si nga kon firi na ni ñuy jàppee ci alquran mooy def la mu digle bàyyi la mu tere mu ne alquran jooju minhajun sadid aw yoon la wu jub ndax moom mooy diine yàlla ji nga xam ne moom la digle ñu jaamoo ko ci te mooy lislaam diine jooju moom la alquran di wane alxaafis ibnu kathir rahimahullah moom itam bi muy tafsir aaya bi mu ne xus bil quran al munazzal ala qalbika fa innahu huwa alxaq suñu boroom wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko jàppal alquran jii ñu wàcc ci sab xol ndax mooy dëgg wa ma yahdi ilayhi huwa alxaq li muy tegtale fi muy jëmale itam mooy dëgg al mufdi ila siratillahi almustaqim mooy dëgg gi nga xam ne moo lay tax a tegu ci siraatul mustaqim foofu la alquran di jëmale al muusilu ila jannati naim siraatul mustaqim boobu muy yoon wu woowu nga xam ne moo lay eggale aljanna wal xayri daaimi al muqim ak yiw wa nga xam ne yiw wu sax dàkk la woo xam ne du tàggalikoog borom borom bi dellu wax ne walladina yumassikuuna bilkitaabi wa aqaamu salaa inna la nudiu ajra al muslihin ci tafsir aaya boobu cheikh abdourahman assaadi di wax ne yatamassakuuna bihi yumassikuuna bil kitab nee na yatamassakuuna bihi ilman wa amala dañuy téye ci téere bi ci xam ko ak jëfe ko fa yaalamuuna ma fihi min al ahkaami wal axbaar ñu xam li ne ci téere bi ci ay atte ak i xibaar yu muy xibaare ci nit ñi jiitu woon ña mel melokaan woo xam ne wu jara roy la ak ña ca yor melokaan yoo xam ne yu jara moyu la mu ne wa yaalamuuna bima fiha min al awamir allati hiya gurratu al uyun wa sururu al qulub wa afrahu al wa salahu mu ne téye ci téere bi mooy ñu xam li ci nekk ci ay ndigal ndigal yooyu nga xam ne ci topp ko ci la xol di sedde la ci la nit di amee li mu bëgg ci la yéwénuk àdduna ak alaxira nekk borom bi della wax ne wa hada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu fattabi'uhu ndigal laa ngo téere bii dama ko wàcce mu barkeel lu ngeen joteeg moom fattabi'uhu topp leen ko wattaqu laallakum turhamun dellu wax ci beneen aaya ittabiu ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabiu min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun ittabiu ma unzila ilaykum min rabbikum topp leen lii ñu wàcce ci yéen mu bàyyi ko ci seen borom te bu leen topp leneen nag lu bokkul ak moom kon dafa digle tere ittabiu wala tattabiu yépp ci benn aaya bi topp leen lii ñu wàcce ci yéen muy alquran bu leen topp nag leneen waaye nag xalilan ma tazakkaru lu néew ngeen di fàttaliku wala ñu néew ñooy fàttaliku borom bi dellu wax ne alif lam kitaabun anzalnaahu ilayka li tuxrija annaasa min azulumaati ila annuuri bi idni rabbihim ila siraati alazizi alhamid kitaabun anzalnaahu ilayk téere bi dama ko wàcce ci yow ndax lan ngir nga génne nit ñi kon alxuraan itam daf nuy génne ci melokaan yóbbu nu ci beneen melokaan li tuxrija annaas min azulumaat zulumaat nag lu bari la bi izni rabbihim ila siraatil azizil hamid génne leen ci zulumaatul kufru lëndëmi kéefër lëndëmi bokkaale lëndëmi réer yóbbu leen ci leeru wéetal yàlla leeru gëm yàlla leeru xam génne leen ci lëndëmi bidaa andi leen ci leeru sunna mina zulumaat ila nuur alquran kon looloo ko tax a jóg bu dee sunna suñu boroom tabaraka wa taala dafa digle ñu topp ndaw li mu yónni muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam topp sunnaam si nga xam ne mooy leeral alquran boo gisee ma ne la ñaar yu mënta tàqalikoo la kenn mënta xam alquran ba di ko topp te ñëwoo ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo koy leeral ci dégg ñu mën a jég maanaa bi alquran di wax waaye moo koy leeral ci jëfe ñu xam itam nu ñu koy appliquer nu ñu koy jëfe moo mu ne ko wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnaasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruun mufassiroon yi ne dhikr foofu mooy sunna ndax li tubayyina linnaasi ma nuzila ilayhim mooy alquran damaa wàcce ci yow kon sunna muy li ngay leerale alquran ndax moom lu mu wax rek waxyu la wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa lii day alquran lii di sunna mais lépp waxyu la kon geneen waxyu gi gidul alquran mooy leeral alquran wa anzalna ilayka zikra li tubayyina linnaasi ma nuzila ilayhim wala allahum yatafakkarun waxaat ko ne ko wa ma anzalna alayka alkitab illa li tubayina lahum allati ixtalafu fii wa hudan wa li qawmi yuminuun wàcce wu ma ci yow téere bii di alquran lu dul li tubayina lahum ngir nga leeralal leen ko leeralal leen ko ba ñu dégg maanaam yi waaye leeralal leen ni ñu koy jëfee ci nga jëfe ko ñu gis borom bi dellu wax ne allazina yattabi'una rasul yattabi'una rasul comme ni mu diglee topp alquran la diglee topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rasula nabiya al ummi alladi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim fallazina amanu bihi wa azzaruuhu wa nasaruuhu wattabau nuura alladi unzila maahu ulaika humul muflihun suñ boroom ne ñiy topp yonent bii ma yónni mu leen di digal lépp lu baax di leen tere lépp loo xam ne safaanu mbaax la di leen daganalal lépp lu teey waaye di leen xaraamalal lépp loo xam ne lu teeyul la sippil diis bi nga xam ne diisaloon na leen muy ay aadaaki ki cosaan mbaax dafa diis yan bu diis la kooku lislaam moo la ci yenni lislaam moo la ci yenni wa yadaw anhum israhum wal aglaal allati kaanat alayhim yan bu diis bi ngeen yanu woon ak jéng yi nekkoon ci seen tànk yi lu bari dagal la waaye aada wala baax wala milieu ba ngay dund bëgg la ko tere wala bëgg laa def loolu loo xam ne warul ci yow te muy lu metti ci yow loolu nee na yonente bi sallallahu alayhi waalihi moo leen di yenn ci yan boobu ténki leen ci jéng yooyu mu ne nag ñi nga xam ne gëm nañ ko nag màggal ko fonk ko dëgëral sunnaam topp leer gi nga xam ne moom la wàcce wàccee ci moom te muy alquran ak sunna ñooñu ñooy taxe ulaayka humul muflixuun borom bi delloo wax ne wa ma ataakum rasulu faqudu ndaw lii lu mu leen andil jël leen wa ma nahaakum anhu fantahu kon alquran digle na topp alquran waaye digle na topp yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma nag muy lënkaloo gi am diggante alquran dikk na ci ay aaya yu limu yoo xam ne dañ fay tudd alkitaab wal xikma wala ñu tudd alkitaab wal aayaat jël nañ ci malikum nu anas radiallahu anhu hadis boo xam ne mursal la mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaaballahi wa sunnata rasulihi yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne bàyyi naa fi ñaar yoo xam ne du ngeen sànku li feeg yéen a ngi ci jàpp muy téeréb yàlla bi ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci beneen riwaaya mu ne walan yatafarraqa hatta yarida alayya alxawda nee na ñoom ñaar lan yatafarraqa alquran ak sunna du tàqali ko benn yoon kenn mënu cee dem bàyyi morom ma koo ci bàyyi rek bàyyi nga fa yépp koo ci bàyyi ne moom laa jàpp bàyyi ba ca des yépp nga fa ba mu ne duñu taqalikoo ba bañi rot si ci man ca déeg ba alallaama ibnu kathir rahimahullah ne alxikma as sunna nee na alxikma bii ñuy tudd ci aaya bi nee na mooy sunna mu dudd ñu bari ci ulama u salaf ne wax nañ ko alxasan wa qataada wa muqatil ibnu xayaan wa abu malik wa xayruhum mu ne ñoom ñépp loolu lañ ko firee moo tax moom xikma fa mu rot ci alquran moom ibnu kathir sunna la koy firee noonu itam la alallaama shawkaani yusakkikum wa yuallimukum alkitaba walxikma wa yuallimukum ma lam takunu taalamuun su borom ne yabal naa ci yéen ndaw koo xam ne ci yéen la bokk nit la muy jàng ci yéen alquran di leen ci yar waaye di leen xamal téere bi di leen xamal itam sunna wa yuallimukum alkitaba walxikma wa yuallimukum ma lam takunu taalamuun di leen xamal loo xam ne xamu leen ko woon as-saadi rahimahullah ne wa yuallimukumul kitaab ay alquran alfaatuhu wa maani da leen di xamal alquran baat yi nuñ koy jànge waaye xamal leen itam maanaa mi nuñ koy dégge alxikma mu ne xiila hiya sunna wa xiila alxikma maarifatu asrar alsharia walfiqhu fiha wa tanzilu al umuri manazilaha saad yi mu ne lim njëkk a wax mooy nee nañu alxikma mooy sunna mu ne am nañu wax la it mooy xam mbóoti sharia ak dégg ko te loola it kenn mënu koo def te delsi woo ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon maanaam bi benn la rek mooy sunna borom bi dellu wax ne waskuru ni'matallahi alaykum wa ma anzala alaykum min alkitabi walxikma ya'izukum bihi wattaqullah wa'lamu anna allaha bi kulli shay'in alim suñu borom ne dee leen fàttaliku di tudd xéewal gi leen yàlla defal xéewal nag fàttaliku ga du wax ga rek waaye mooy xeewloo ga nga jariñoo ko ni'matallahi aleykum wa ma anzala aleykum min alkitaabi wal xikma lii mu leen wàcceel ci alquran ak sunna gis nga ni ñu lënkaloo ñoom ñaar ay ni mu leen di boolee yaisukum bihi ci la leen di waar gis nga ko sax bihi maa de bihi benn benn yaisukum bihi lii mu wàcce wa ma anzala aleykum maama ca la demir ba dellu maa moomee nag mooy alkitab wal xikma moo tax mu ne yaisukum bihi waxul bihima kon moo lay xamal ne benn bee mënuñoo taqaliko wattaqullah waalamu anna allaha bi kulli shay'in alim borom bi dellu wax ne laqad manna allahu ala almuminin is baasa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikma wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin suñ boroom ne yàlla day baaxe na jullit ñi gëm yàlla defal leen xéewal gu rëy ci yabal gi mu yabal ci ñoom ndaw loo xam ne ci ñoom la bokk innama ana basarun mislukum loola mooy tekki ñu mën koo roy mu ne mu di leen jàngal ay aayaam waaye di leen ci yar bu ngeen seetloo fu borom bi tabaraka wa taala boole yuallimuhum ak yusakkihim yusakkihim ji lay jiital ci benn aaya rek la yuallimu ji jiite te loola ñaanuk ibrahima la rabbana wa ba'ath fihim rasulan min amsim yatloo alayhim ayatik wa yuallimuhum alkitaba wa yusakkihim innaka antal azizul hakim foofu rek la yuallimuhum jiitoo yusakkihim waaye feneen fu mu mën a doon yusakkihim mooy jiitu moo tax kon ñiy jàngale dañoo bàyyi waala xel yar yar wa yusakkihim wa yuallimuhum alkitab wal xikma di leen yar ci dund alquran ak sunna mu ne nag wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin doonte nekkoon nañu lu jiitu yonent boobu di ñëw di leen jàngal alquran ak sunna ci réer goo xam ne gu bir la min qablu min qablu min qabli taallum maanaam lu jiitu ñuy xamlu kon ku xamluwul yow yaa nga des ca dalaalin mu biin ba kon kon moo lay xamal ne kon li ñu joteeg alquran ak sunna mooy xamlu ko ku ko ndax nee na lu jiitu ku nga koy xamlu nit kaa ngi nekk ci dalaalin mu biin cànkute gu bir kon ku ko xam xamluwul génnoo ca dalaalin mu biin ba yaa nga ci ndax min xablu la wax gannaaw amagul nag xablu ba nekkagut ndax balañ na nangam jiitu nangam day fekk li ñuy wax am ba pare maanaam njàng mi am ñu ne lu jiitu muy jàng waaye su fekkee jàngagul moom kon ma nga des ca gannaaw ba tey borom bi del wax suratu nisa wa anzala allahu alayka alkitaba wal xikma anzala allahu alayka alkitaba wal xikma gis nga kon lay xamal ne kon waxyu hadis euh, waxyu la lii mu ne ko moo wàcce ci yow téere bi wàcce ci yow sunna bi nga koy leerale wa allamaka ma lam takun taalam wa kaana fadlullahi alayka azima suñu boroom bi muy wax ci aqi ummahatul muminin muy waa kër yonente bi alayhi salaatu wasalaam te ñooy royukaayu jigéen ñépp ne leen waskurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal xikma yéen waa kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dee leen jàng lii ñuy jàng ci bi seen biir néeg yi lii di wàcc ci seen biir néeg yi muy alquran ak sunna dee leen ko jàng nga kon aaya boobu fedd li na jigéen ñi dañoo war a jàng bu baax comme ni góor ji war a jàng jàng alquran jàng sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax waaye yañ doon wax di ko wax ak góor ñu jigéen ñaa nga ca biir waaye ci feddali nag teewul mu beral leen seen waxu bopp boo xam ne góor ñi sax moom duñ ca dugg waskur na noonu niswa la maa yutla fii buyootikunna min ayati illahi walxikma inna allaha kaana latifan xabira borom bi dana waxaat suratul jumaa ci lënkale alquran ak sunna huwa alladi baasa fi lummiyina rasulan minhum yatloo alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikma wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin moo yebal ab yonent boo xam ne moo leen di jàngal alquran di leen ci yar di leen ci yar nag di yatloo alayhi moom da koy jàng muy aay yay rot ca xutba yaag yay rot ca waaraatee waaye nag loola doyut téewul nag yuallimuhum day ñëw ca kanam nag parce que kon mbir mi ñaar la waaraate gi muy xutba yeeg njàngale meeg yooyu ak lu mel ne lii kii moom yetloo rek la mais yuallimu nag moom ca jàngukaay ya lay doon moom parce que nag loolu mooy tax mu mën a continuer nag ñaar yooyu ñooy am gis nga yatloo alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimuhum alkitab ndax yuallimuhum de mooy tax bu ngeen ko gisatulit mën a dem mën a sax yóbbu ñeneen amaa bu ngeen toogee fi moom moom yetloo ak yusakkihim moom dana leen mën a yar li fekk yaa ngi yéen kanamam mën nay wax di leen ci waar di jubbanti di corriger comme day dem nag yéen da ngeen di dem nit ñi mënuñoo nekk ci benn barab tey da ngeen a war a jot la ji moo tax yuallimuhum nag moo tax nag kon njàng mi mënu see ñàkk te lii fàttali la ak waar la waaye nag njàng moom fokk nag ca barabi jàngukaay ya ca jàkka ya ca jàngukaay ya ca téere ba ci boppam yor téere bi di jàng yu allimuhumul kitaab al kitaab wal xikma wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin te nee lu jiitu njàng moomu nag nit ñi ñu ngi ci cànkute goo xam ne gubin la borom bi del wax ne qul atiu llaha wa atiu rasul fa in tawallaw fa innama alayhi ma xummila wa alaykum ma xummiltum wa in tutiicuhu tahtadu wa ma ala rasuli illa albalaaxul mubin topp leen yàlla ci jëfe alquran topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci leeral gi mu leen koy leeral mu ne nag bu ñu dëddoo nag ah kenn ku ca nekk la la cay fekk yaa koy gàdd fa innama alayhim maa xummila wa alaykum maa xummiltum mu ne moom mii mu yónni nag ku ko topp rek gindiku ba tax boroom xam-xam yi dañuy wax ne lii ñu bari dañuy wax naan tagg gi suñu boroom tagg yonente bi alayhi gën a mooy wa innaka la ala xuluqin azim waaye mufassiroon yi walla boog li ëpp ci ñoom dañoo wax ne aaya bii wa in tutiuhu tahtadu loolu moo gën a nekk tagg wi gën a rëy ci yonente bi sallallahu alayhi wa kii ku ko topp rek gindiku ku ko topp gindiku mu ne nag ab yonent dara waru ko lu may jottali jottali bu leer nañ ñi rek borom bi mooy ñi nga xam ne dañuy juuyoo ak ndigalam la leen ca mën a fekk falyahdar alladina yuxaalifuuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim mu ne na moytu na wattandiko bu baax ñi nga xam ne dañuy juuyoo ak ndigalam te ndigalam mooy ndigalul yàlla ndax lu muy wax yàlla moo ko wàcce ci moom fitna dal leen wala mbugal wàcc ci seen kaw borom bi delloo wax ne wa man yusaaqiqi rasula min baadi ma tabayyana lahu lhuda wa yattabi gayra sabili lmuminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa saat masira nee na ku juuyoog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba la njub gi leeree ñu leeral la ne lii moo doon doxiinu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga topp yow weneen yoon ni mu ko waxee ci beneen aaya wa ida qiila lahum taalaw ila ma anzala allahu wa ila rasul qaalu xasbuna ma wajadna alayhi abaana waaw ñu bari soo leen ne taalaw ila ma ansalallahu ila rasul ñoom dañ naa la xasbuna maa wajadna alayhi abauna nun daal diine ju nu fekkoon suñuy bàyyi niñ ko doon doxale ak suñuy maam nun daal du dul jël lu bees ñoom lu bees lañ koy tudde te fekk na loo nga leen di woo moo mag moo jiitu fuuf la seen bàyyi ak seen maam ya nekkoon seen bàyyi ak seen maam yonente bi sallallahu alayhi moo leen fi jiitu kooka kon ñooña kon juyoo nañu ak yonente bi sallallahu alayhi moo tax mu ne wa yattabi gayra sabilil muminin léegi yoon wam topp léegi yoonu aada yoonu baax la yoonu ay maam la waaye yoo duutu yoonu ñu gëm yàlla ñi gëm yàlla moom seeni yoon wenn la te bu loolee mu def bu ko keneen defee keneen def ko kenn du mën a ànd parce que kenn ku nekk say baaxi maam baax yi bokkuñu xeet wu nekk am nañ seeni baax ak seeni aada bu fekkee kenn ku ne nag loola topp loolu kon léegi woowa yoon bokkul ak sabilul muminin ndax sabilul muminin mu benn la benn réseau la boo xam ne foo mën a dem wenn yoon wee yonente bi alayhi salaatu wasalaam digle nu ñu war a ngoyee ci sunnaam sunnaam nag bu ñu ko waxee du rek xadiis ya waaye mooy nu mu jëfandikoo alquran ak sunnaam boobu nu mu ko jëfandikoo mooy aw doxiinam ci diine loolu mooy sunnaam moo tax mu ne fa aleykum bi sunnati fa aleykum bi sunnati aleyk alayka ci arab ndénkaane lu feddaliku la mooy loo xam ne bul taqaliko ak moom bu ñu la woon alayka fulaan mooy taqool ak moom fu ñu la gis lañ ko gis waaw alayka fulaan mu ne fa alaykum bi sunnati wa sunnati alxulafa irrachidin biha jafandu leen wa addu alayha bin na ngeen ko matt ca seen sell ya mën a téye bu dëgër boo xam ne doo bëgg a wax sax ba muy wadd dal nag wa iyaakum ni alayka di diglee taqoo noonu la iyaaka di dégloo moytu iyaaka wal asad buñ la ko waxoon iyaaka wal asada moytul gaynde gi bu ko bul jege fu mu jege wa iyaakum wa muhdasaatil umuur na ngeen moytoo moytu nag mbir yi ñuy sos ndax kat fa inna kulla muhdasatin bidaa lépp lu ñu sos biddaa la te wa kullu bidaatin dalaala te bépp biddaa nag cànkute la ñu jëli ci abi hurayra radiallahu an mu jëli ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne kullu ummati yadxuluuna aljanna illa man aba qiila wa man aba qaala man ataani daxala aljanna wa man asaani faqad aba rawahu albuxaari yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne sama xeet wépp danañ dugg aljanna lu dul ko bañ ñu ne kan mooy bañ a dugg aljanna mu ne ku ma topp ne dugg aljanna waaye ku ma mooy nag yaa bañ a dugg aljanna ndax feneen fuñ mën a jaaree ba dugg aljanna amut lu may ci topp ko moom waaw wa amano bi ma nuzila ala muhammad wa huwa alxaq ma nuzila ala muhammad dong wa huwa alxaq leneen amul waaw beneen xaq mënta am li ñu wàcce ci moom muy alxuraan ak sunna loolu dëgg te fa ma saa baad al xaq illa dalal te dalal rek moom fa muy jëmee borom moom ah mbugal la loolu moo tax kon mu ne ku ma toppul da ngaa bañ ndax ku ma toppul rek ci dalal nga de moo tax borom bi ne ko fa in lam yastajiiboo laka faalam annama yattabiuuna ahwaahum te wa man adallu mimman ittabaha hawaahu bi xayri hudan min allah inna allah la yahdi alqawma alzalimin fa in lam yastajiiboo laka ku la wuyuwul faalam seetatuñu dëgg de yattabiuuna ahwaahum seen bànneex la ñuy topp te nag amul ku gën a sànq koo xam ne nag bànneex lay topp wa man adallu mimman ittabaha hawa bi xayri hudan min allah mu dellu wax ne fa man raxiba an sunnati fa laysa minni nee na képp koo xam ne dëddu nga sama sunna sib nga ko sama doxin man yonente bi sallallahu alayhi wasallam jël nga weneen doxin doxinu keneen ñu jàngale nii la yonente bi sallallahu alayhi doon dundee diine ji pas-pas nii la ko dundee jàmm yàllaam nii la ko dunde ay jikkoom nii la ko dunde nga bàyyi fa loola jël beneen nee na man bokkatoo mu toog man dara waaw ndax ñooñu fokk ñu taqali ko moom la ko borom bi de inna allazina farraqoo diinahum wa kaanu shiyan lasta minhum fii shay waaw ñoo jotee daf ñoom dara innama amruhum ila allah yàlla mi nga xam ne nag moom moo bind moom ko baax ak ku mel ne ne nag ñépp ci moom la ñuy ñëw ndax moo leen bind ilayhi marji'ukum jami'an waaw moo tax mu ne mu ne ko innama amruhum ila allah ñooñu moom nekkatoo seede ci ñoom mu dellu wax ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd ku jëf-jëf joo xam ne amoo ci ndigal lu bàyyi ko ci moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam muy alquran la jotli wala muy sunnaam bu mu la leerale alquran la nga jëf amul benn delluwaay ci delluwaay yu nee na loola yàlla du la ko fay dara koy delloo yàlla nag li muy fay mooy lim digle kon bokk yi yépp bu ñu ko gisee kon pour rek ñu xam lu nu séq ak alquran ak sunna ñu xam lu nu séq ak moom li ñu séq ak moom bokk na ca war koo xam lo ne nee na yonte bi yuallimuhum da leen di xamal ku ñuy xamal nag da ngay nangoo xam lu buñ la dee xamal te xam lu woy dem nag du tax nga xam buñ ne kii day xamle nga ne man damay xam lo moo tax borom bi ne allazina aataynahum alkitab yatloonahu xaqa tilawatihi ulaayika yuminuuna bi nee na ñi nga xam ne jox nañ leen téere bi ndax alquran la jiitu ca xam ga mooy jàng ko man ko jàng njàng mu rafet waaw man ko ndax moom yutaabadu bi tilawatihi jëmmi njàng mi rek ak jaamu yàlla la moo tax dañ góor góorgóorlu suñ kem kàttan xaqa tilawatihi nee na ulaayika yuminuuna bi wa man yakfur bihi fa ulaika humul xaasirun kon aaya boobu mooy wax ci nu ñu war a rafetal njàngum alquran suñ kattan yàlla nag tegul kenn loo mënul laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha waaye nag da nga cay góorgóorlu euh, waykat ba wax na ko nee na jéem a mën a rafetal alquran wa laysa baynahu wa bayna tarkihi illa riyaadatu mri'in li fakkihi waaw nee diggante mën a tajwid ak ñàkk a mën a tajwid mi ngi ci tàggat saw ŋaam rek waaw saw ŋaam ngay tàggat jubbanti saw ŋaam ba mu jub waaw illa riyaada riyaadatu mri'in li fakkihi waaw waaye bu kenn mën dama ko mënut déedéet wala xad yassarna alquran yassarna làkk boo yaa xam xeet woo mën a doon boo góor góorgóorlu ci alquran bu ne naar yi rek ñoo mën a jàng alquran ndax ñoom dañuy ay naar moo tax de dañuy dajeeg ay ñeneen ay Inde ak i africain ci ay musaabaxa ñooñu di leen jitu ñooñu di leen jiitu ah kon li mu wax rek illa riyaadatu mri'in li faqihi yàlla moom ñépp la ko jag jagleel qul ya ayyuha nnaas inni rasulullahi ilaykum jamian jamian waaw ñépp a ci yam kon loolu lu ñu war a yittewoo la ñaareel bay yittewoo nag jéem a dégg maanaama kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun li yaddabbaru ayaati wa li yatadakkara ulul albaab li yaddabbaru tadabbur tadabbur mooy settantal ci gannaaw tafahum la nekk loo fahmu ba pare ba comprendre ko ci ngay settantal nag settantal nag mooy di ko wàcce ci li ngay dund yow wàcce ko ci sa bopp wàcce ko ci li la wër lenn lu ne aaya bi nga di ko léegi yow li ngay dégg ak li ngay gis ak li ngay dund wala boobaa yaa ngi yaa ngi tadabbur boobaa ci nga koy mën a jëfandikoo bu boobaa moo tax mu ne li yadabbaru ayatihi wala yatazakkara ulul albab kon alquran li ñu njëkk a séq ak moom nañu góorgóorlu ba man koo rafetal am njàngam suñ kem kattan ñaareel ba góor góorgóorlu jéem a dégg ay maanaam man koo wàcce ci li ñuy dund lu ñu gis man koo firi ci alquran waaw situation bu am bu ne ñu mën a delluwaat ci alquran rek daal di xam situation bi lu ci alquran wax ndax alquran dundu doomu aadama yi génnuñu ko santiyoo nit bu nekk yaa ngi ci alquran façon doxin bu ne yàgg ngi ci boo gisee xiste yi ci borom bi tabaraka wa taala di nettali ak nit ñi mu ciy tudd kenn ku ci nekk sa exemple mi ngi ci alquran kenn ku nekk rek ak noo mën a mel rek borom alal bu bew ngaak borom nguur gu bew ngaak koo mën a doon rek sa exemple rek ci biir alquran am na koo nuróolu doxin ci biir alquran loolu mooy waral muy nettali xista yi di alquran nekku fii léeba di leen léebal wala di leen nettali ay xista waaye xista yi luy répété la lu mu nettali rek luy continuer di am la parce que doomu aadama daanaka seeni melokaan benn la day continuer di répété waat rek waaw fi humanité xas yegg fi ñu yegg ci xalaat ak ay defin benn bee rek lu ci nit def daanaka ci ñeneen nga ko jële comme nag am na ñu nu fi jiitu woon am na ñu mel ba pare kenn mënatu la génn noonu daanaka bu dee mbaax am na ñu la jiitu ci mbaax baaxe noo xam ne mënatoo koo génn bu dee mbon am na ñu la fi jiitu ci mbon bonee noo xam ne mënatoo koo génn saa boo ñëwee rek am nga iliman foofu ci ci koo mën a topp boo baaxee ñi la jiitu woon ci mbaax ñu ngi ci alxuraan ñu la kon da yàgg diw ak diw ak diw mee nuróo boo bonee ñu la kon da yàgg diw ak diw ak diw mee nuróo ci biir alxuraan ba tey diw mii fii la mujjoon diw mii fii la mujjoon kenn du ko gën dafa dar képp lépp ñu jële ci muawiya radiallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi ddin wa innama ana xaatimun wallahu yu'ti muttafaqun alayh yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ku yàlla namm ci moom aw yiw day dana ko defal tawfiq mu nangoo xam lu diine ba dégg diine mi mu ne moom nag day séddale rek waaye yàllaay joxe maanaam day jàngale rek ak di leeral waaye nag mu dugg ci sa xol nag ñu defal la tawfiq ba nga mën koo jëfe nag loolu moom tawfiqu yàlla la comme dama ko wax ne ko wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim waxaat ko ne la tahdi la tahdi ak la tahdi la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasa waaye wa innaka nag la tahdi ila siratil mustaqim man ngaa wane siratul mustaqim tegtale waaye nag tënk ca nit ke nag ba mu jaar ca nag muy hidayatu tawfiq kooku yàlla moo ko moo ko yoral boppam ñu jële ci abi musa radiallahu anhu yonente bi alayhi salatu wasalaam ne misaalum lii ma yàlla yónni ci ak njub ak xam-xam nee na dafa mel na taw nee na taw boo xam ne dafa wàcc ci suuf xeeti suuf yi nag bokkuñu mu ne am na ci suuf soo xam ne su teey la su nooy la soo xam ne day nangu ndox mi saxal gàncax bi mu ne am na ca nag barab yoo xam ne moom yu kekke la yu dëgër la yu xóot yoo xam ne day téye ndox ma du ko naan du saxal gàncax waaye nag ndox maa nga fa taa fa nafa bi biha naas fa sharibu minha wa taqaw wa shara'u nit ku bëgg wëgg mën nga caa ñëw wëgg ku bëgg a tànq mën nga caa tànq yóbbu mooy ki nga xam ne am na xam-xam waaye nag moom jëfewul xam bi waaye nag mën na ko jàngal nit mu ne ak kuréel boo xam ne nag moom dafa dëgër ba noppi nag ratax nekk det beer boo xam ne ndox mu ca dal rek day dem laa tumsiku maa an wala tunbitu kala mu ne ñoo xam ne ñoom duñu jàng duñu xam kon mënuñoo xamal keneen itam mu ne fa dalika mathalu man faquha fi dinillahi taala wa nafaahu ma baasani llahu bi nee na ku njëkk ki mooy koo xam ne jéem naa xam lu diine ba dégg ko nee na mu jariñu ca jariñ ca keneen fa alima wa allama ak koo xam ne nag lam yarfa bi daalika rasan koo xam ne moom jëralu ko yëkkati boppam njàng diine moom defu ko mu yittem lu mu cay def mooy lu mu donn wala lu mu for wala lu mu dégg ni di wax lu mu waye fal lu mu ca dégg rek jël jëralu ko seqib jéego wala dépensé dërëm ngir jàng moo tax mu ne walam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bihi kooku nanguwul njubug yàlla gi nga xam ne moom lañ ma yónni imaamul buxaari rahimahullah ci aljaamiu saxiix ci kitaabul ilm am na fu ñuy wax baabul xuruj fi talabil ilm bunt boo xam ne lam cay jàngale mooy nu ñu war a génne sàkku ji xam-xam mu cay li xissa jaabir ibnu abdillah mu ne dox na masirata shahrin dox boo xam ne da ca am weer mu ne jëm ci ku ñuy wax abdullah ibnu unays fii xadisin waaxid di ne benn xadis ko taxoon a jóg mu tukki tukki boo xam ne distance bi def na ci weer ci diggante bi mu ne moom jaabir moom dafa wax ne balaxani damaa yëg ne am na kenn ci saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa yor na ab xadis boo xam ne man xadis ba xamaguma ko mu ne ma jënd waruwaay daal di takk sama waruwaay daal di dox jëm ci moom lu tolloog weer ba ñëw saam nee na saam la ko fekk nee na fekk Abdullah ibn Unays moomu muy seeti nee na ma wax ki nga xam ne moo koy gardeel buntam ne ko jaabir ne ko jaabir alal baab ne ko jaabir ibnu abdullah day mi ngi ci bunt bi nee mu ne ibnu abdullah daf ne ko jaabir mu ne ko ibnu abdullah mu ne ko waaw nee na mu daal di génn daal may lëng nee ma ne ko xadisun balaxani anka annaka samitahu min annabi sallallahu alayhi wa sallam li ma tax a jóg mooy hadis boo xam ne damaa dégg ne dégg nga ci yonente bi alayhi salatu fa xasiitu an amuuta aw tamuut qabla an asmaahu ma ragal nga faatu wala ma faatu te dégguma hadis bi loolu ma tax ma tukki tukki bii nga xam ne def naa ci weer ci diggante bi nee mu daal ne ma waaw waaw samitu rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul yaxsuru llahu annaasa yowma alqiyamati uratan xurlan buhman ila axiri alxadis hadis boobu la doon déglu ci hadis boobu di wax ci mbirum dekki doomu aadama yi bu ñu dekkee bu ëllëgee ni ñuy rafle ak ni ñuy mel ni nga xam ne nañu leen binde woon maanaam nekk ay aat muy góor ñoo xam ne ñu penku nañu meloon la ñu dindi woon ci ñoom daf cay nekkat mu ne ko hadis boobu moo ma taxoon a jóg imam Buxaari nettali ba tey ne ku ñuy wax Ata ibnu Abi Rabah nee na xaraja Abu Ayyub al Ansari ila Uqbat ibn Amir wa huwa bi Misr yasaluhu an hadithin sami'ahu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Abu Ayyub al Ansari saxaaba bu mag la mu ne génn na di seeti ku ñuy wax Uqbat ibn Amir te booba ma nga Misra xam ngeen ne diggante Madina ak Misra sore na lool mu ne ba mu ñëwee. mu dikk ci kër ki nga xam ne mooy maslamatum nu muqallid al ansar yi te booba mooy buur mooy kilifa ak misra bañ ko ko waxee ne moom abu ayub moom moo ñëw mu daal di génn gasandu ne ko maa jaa abika yaa aba ayub lan moo la tax a ñëw mu ne ko xadisun sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam walam yabqa ahadun sami'ahu xayri wa xayruka fi sitril mu'min te kenn desul ci ñi ko déggoon ku dul man ak yow léegi ne mu bëgg koo wóorliku si ci yow mu ne ko naam samitu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul man satara muminan fi dunya satarahu llahu yawma alqiyama fa qaala lahu abu ayub sadaqta maanaam moo amoon na hadis bi waaye dafa gisul woon keneen ku man hadis bi moom ni mu ko mëne mu jàpp ne kon mbaadu moom da cee jóom wala ndax ni mu koy waxee noonu la pour wérlu jikko moo tax képp dégg ne mën na ko moom it mu seeti ko ba gis ko kooku waxal ko hadis bi mu doog a xelam doog a dal gis nga kon loolu rek ci leeral la ñooñu moom ni ñu xamoon li dox seen diggante ak alquran ak sunna te la ca jiitu mooy sonne ci xam ko mu ne abu ayub bi mu waxee kooku loolu rek nee na dafa daal di wëlbatikuwaat dellu ci waruwaayam daal koy waraat daal di jëm si waat madina amul beneen yitte bu mu dox ci dëkk ba kon ñooñu muy asalafu saaleh noonu la ñu xëre woon ci sàmm sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci xamlu ko ak di ko jéem te ñooñu nag la borom bi tabaraka wa taala wax ne ñii mën a texe mooy ñi leen topp wassaabiquuna al awaluun min al muhaajirina wal ansaar walladina tabaauhum bi ixsaan radiallahu anhum wa radu an defe naa ñun walladina tabaauhum rek ci lañ mën a dugg min al muhaajirina wal ansaar moom dem nañu waaye nag walladina tabaauhum bi ixsaan ñi leen topp ci ak rafetal kon li jiitu sunu joteeg alquran ak sunna mooy xam lu ko kon foofu kenn ku ci nekk mën nga cee tontu sa bopp ci foo toll ci xam lu alquran foo toll ci xam la sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bala nga koo mën a jëfe da nga koy xam lu